ay taalibe yu dogu lool fas yéene naaf bu ñu jàkkaar lool dóor ko mu daanu bàcc ko jàll ci beneen ci digg naaju tàng jër amul dellu ginnaaw te duñu bàyyi te liggéey bi jeexul ñoo ngi ci Daaru Salaam boo kibar ga ci tool yi nga xam ne Serigne Sidi Mbacke moom sëriñ Abdoul Ahad moom lay bay at mu nekk tool yi yaatu lool di ay hectares yu bari yoo xam ne Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Abdou bay na ko. ñi fi doon bay boo wëree tool yi yaatuwaayu tool bi danga xam ne ay hectares yu bari lañ bay waaye boo xoolee li fi nekk ci ay naaf danga xam ne ay tonnes yu bëree bëri lañ fi suul ci kemb euh, dana mat junni bu tegal junni bëri kemb yu tegal sëriñ si di bay ko fi mbay moo xam ne bëtam ak tànkam amu ci dara la ko ci ump day dox ak tànkam ñëw ci tool yi di ko xool ak bëtam ba mbay mi àgg. liggéeyu mbàcc mi jëri meeg la ci aajowu mu sant koo rakam di sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Abdou laxaat mu ànd kooku mbooleem mbokk yeeg taalibe mu bàddali ko rakam jii di sëriñ Amsatu mbokk yëpp àndandoo fekk si fii ci tool yi eh, sëriñ eh, Amsatu Mbàkke ñu àndoo ci liggéey bi yaakaar naa ne ajjuma ci guddi la ñu fanaan si waaye samedi bi nga xam ne ñaari waxtu mi ngi des la mbàcc mépp daanu ca bàcc eh, tool yi war naa mat hectares yu bëree bari waaye kon ñu jàpp ne eh, ci benn bëccëg bi la mbàcc mi daanu léegi nag ñu songu njëriñ mi ñu songu njëriñ mi eh, incha allahu rabbi te jort nañ ne bu ngelawee njëriñ mi dana demee ni mbàcc mi demee. réew mi di Sénégal développement rek la bëgg. te mbay mi lu ci gaaw la jëf ju mel nii nga xam ne Serigne Sidi Mbacke Abdoul Ahad mi ngi koy amal jëmee ci mbay mi lees war a roy la te it laaj nguur gi di jàppale ñu mel nii. nekk royukaay yoo xam ne euh, war nañ koy bàyyi xel ci bu ñu bëggee euh, autosuffisance alimentaire bi ñuy wax wala ñu bëgg développement il faut ñuy xool acteurs de développement yu mag yi ñu leen di bàyyi xel te di leen jàppale ci niñ ko bëggee donte ñoom jàppale na yàlla ngi leen di jàppale euh, ci waaye nuy am suuf. di am ay matériel di am ay jiw yu baax di am ay engrais lépp loo xam ne mbay laaj na ko ndax jàmbar ju mel nii kuréel bu tuuti la àndal boo leen doon sat du mat juróom-benn fukki nit ak jëmmi boppam mu mën a bay hectare yu toll nii yaakaar naa ne lii bu fekkonte ne bi réew mi am nañ e, téeméer ñu mel ne moom côté bu ne benn acteur de développement bu mel nii feeñ fa yaakaar naa ne loolu dana jàppale réew mi ci jëlee ñu ci néew doole jëme yóbbu ñu ci e, ak am doole. taalibe yi fu ne la ñu bàyyeekoo ñëw ànd ak Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Abdoul Ahad liggéey bi nga xam ne moom la ko Serigne Sidi Mbacke sant. ñun mënuñoo fayal Serigne Touba lenn nag lu heure bu soxlaa rek ñu jox ko li mu li mu soxla waaw loolu rek man xam naa sax duñ mën a joxe lépp waaye ñu jox ko suñ képp lay kattan. dëgg yàlla waaye liggéey bi li muy yaatu yaatu yaatu nag ci ñetti fan lañ ko daan liggéey bisu tay bii nii bu àggul ci bëccëg bi itam bu ngoonee lu mu guddi guddi eh, dana àgg incha allah wala boog noonu lañ ko daan defee su su àggee tam suba mbees mi itam dana mën àgg suba wala noonu lañ ko daan defee. troisième suuf bi tam ci lañ daan roñ gooñ mi nga xam ne liggéey bi li muy rëy rëy wax dëgg yàlla murid yi ak taalibe yi pasteefu nan kenn ku ci nekk rek liggéey bi jeex moo la gënal waaw ndax xam nga junni bëri ko ak ñaar téeméer xam bay ñoom xam ne loolu mbay mu daw waaw ndax ñun Saalum lañ jógee ca région de Wack Ngouna ba ci Kër Paate euh, Njombaatu poste ayib miir na sabax ñiy jóge Dakar ñëpp ñëw. maa ngi jógee Dakar euh, dëkk dëkk bu ñuy wax ceeb mais maa ngi jógee Dakar. Euh, liggéey bi rek nag moo ñu moo ñu indi démb fi lañu fanaan si ñu ngi fas yéenee liggéey liggéey bi ba mu mat bu soobee yàlla ñu doog ko dellu fan jëm fan dëkk. donc bu ñu xëyee ba léegi doxagul nañu euh, euh, deux kilomètres quatre cent incha allah mu des tuuti ci kanam incha allah ñoo ngi ñaan yàlla eggale ko jàmm si. liggéey bi dafa ànd ak ay bernde muy ay xéewal yoo xam ne du manqué benn yoon sëriñ Saliou Mbacke moom sëriñ Abdoul ñu gënoon ko xam ci sëriñ Saliou Njurul yal na yàlla yokk ay leeram taas ñu ci barkeem taxawaay ba mu amoon ci bernde yi di ko indi taalibe yi nekk ci tool yi njabootam dañu ko yokk ñi wax ne xéewal yi nga xamante ni bii moom la sëñ bi santaane woon nii rek comme nañ ko daan defee moom mi nga xam ne moo fonde woon lii waxoon ne da ci lëg moom addunaam lépp def na ko ngir liggéeyal Serigne Touba ak sàkku ngërëmul Serigne Touba euh, loola rek moo ñu fi indi ba léegi ndax euh, wolof day wax ne fu ndox daan taa boo demee fekk fa tepp-tepp ba waaye mën naa ne fii ndox daa taa na fi waaye ba léegi kon euh, géej ga moo fa nekk ab tepp-tepp nekku fi kon la fa nekkoon rek moo fa nekk ba tey ñu ñaan nag sëñ Laat mi nga xam ne tey jii moo taxawaay moo taxaw taxawaayu sëñ bi taxawaayam boobu ñu yàgg koo ànd ak moom ndax wax dëgg yàlla euh, ba fi nekkee ba fi sëñ bi jógee ba léegi lépp loo xamante ni bii sëñ bi daana ko def benn mën naa ne bu ko deful ñaari def na ko benn genn wàll kon loola pasteef ak ak ak sëriñ euh, tubaal Serigne Touba ndax Serigne Touba daraam euh, du ndaw daraam tuuti xéwal yi nag mi ngi nii ndax comme nañ ko daan defee mën naa ne arafi Touba lañ fi indi muy ñaar fukki mban ak juróom-ñett loolu nag wundu lu bare bare bare bare xidma di liggéey bokk ci yoonu murit bokk ci ponk yi murit bu dëggal di murit saadix ne Serigne Touba moo ne texe ñeel na bépp murit bu dëggal boole kook ñett yi muy liggéey bëgg sab sëriñ waaye di joxe àddiya te taalibe bu ne xam na ne loole moo di njariñam fii ak fa ñu jëm moo tax fu sëriñ bu wootee ñoom dañuy wuy si boole kook jëf te duñu bàyyi benn yoon te liggéey ba matul